mu nekk ministre nga ne ko dañ si mu ne excellent kon nag kii xam nga daw happy eat lañ nga xamne yena nek ci diaspora li yeen la ko defaral li yeen la ko bu da ngeen enjoy la ka matum tuntu la sosay xam de ko sosay bare dis. mo ma toon les mo asla bebe ye kanan kananta good asla be mo jibe gan ka duwa sima ya bani a jada ken anen fanan ka bakari fanan ka tendu ka fatsama di ni ñep ño xamne ñon nga andal bolu ci juuf kontaan mu jox madam rek mu nuyo askar everyone um di wax ne Thank you. Eh, jërëjëf ah, honorable ah, nuyu la lu bare bare ah, jamono ji sa fan si du ñàkk rek ñu ngi. julli ni ko defee ñu ngi ci ñu nii la te noonu lañ ko defee woon démba daanaka dëkkandoo rek am di jàmm yi ñu war a seet. ne ne yaa ngi demoon nuyu ji family dem julli Ibo town demoon nga si président bi gis. tamit. Mhm. Eh, am connection connexion boobu foofu te tamit ñoom dañ am daanaka yi fi góor mom dañoo gawa dem ci ñawkat di ñoo xam sax piis lu mu jar ti kumba ak gal sami yi ñoom na bi foktare jigen bu nekk da nga wara understand sa jëkkër kola bu ko dé jàpp so basically nonu la so dama dee xool kola So could you please I mean update us on that? Okay. You want it in English? Mandinka. About to start again. Accept. people know there was work that happened last year, and uh, those uh, works were on. They at the beginning, but again, that's a different. And they came somewhere in middle of the job. And when we presented what we are doing and what is left to be done, uh, we cannot use the the scoreboard that we intended to use, which all of it were not really something that was planned. So this is what um, we have to go into for, for, for the stadium. And, you know, no matter how much you want to do, you will always there, including the, the slabs that are supposed to be, because that's the other part. So the outside where those um, works, who is supervising the contract and the project consultant, and um, then Damalaka Amandinga and North, of course, because we're receiving text message that we should connect our audience at some point. Yeah. comme noko waxe president already i mean the governor already allocated. i said not entirely everything but whatever is needed for football would be there yak andawi uh, ak also liggey ci walum sports No, no. jafé jafé du ñak xam nga liggey mom da boss bi li mo laccé dafa bari té yéné yi do dé mëna def lépp lo xamné amuñ budget bu doy waye nak expectation bi bari bari wul té lolu bokk na ci jafé jafe yeneen ci jafé jafé moy luwa yi nga xamné ni mom lañu liggéeyal parce que tay amna lu nit ñi di yakkat ci ñun jëm kanam am na te tey kuy xool ci wàllum ndaw ñi am na lu bari loo xam ne lii xew du daan xew ci wàllum jëm kanam. na PIA President Award Scheme ñu bari xamoon nañ ko fii nii ñu ko ooy award scheme demoon na ba daanaka ci wàllum athletics ci wàllum beach volleyball bi nga xam ne nii tey ñu ngi pan leen dinañ ko make available so alhamdulilah um, jëm kanam am na jafe-jafe am na waa ñu ngi liggéey pour seet lan lañ mën a def pour mu jëm yaa jëm kanam boo amee university degré gré 12 yooyu nga mën a def waaye am na ci liggéey yoo xam ne ñu ngi ut nit amuñ dañ soxla dañ leen day jëlee ci bitim réew Sénégal wala Sierra Leone ndax it na sax bu ñëw mën liggéey yi nga xam ne nii mu ngi fi so li ñu waxee ne dinañ d'accord ne dégg la liggéey am na ci yoo xam ne ni amul waaye am yoo xam ne général ko parce que ñu bari dañ cee wax naan transport defu leen boobu la nekk <laughs> so su nit ñi waxee ne yu transport jox leen di ñëw liggéey xëy na xamuñ sax portfolio ministre government damay noonu government ku nekk dafa am sa liggéey bopp mm-hmm. soo lum ndaw ñi mooy li ma mention muy créer opportunities yoo xam ne dafa jox nit ñi ndaw ñi secretarial uh, stories soo demee um, NYSS ñu ngi recruit almost three hundred fay leen school fees jox leen stipend every month o ñu yóbbu leen Seif Mahfouz o beneen institute ñu tànn bu dee dañ bëgg a def campagne. ka olof Ndiaye ne wéddi gis bokkut sax yéen a li nga xam ne nag uh, ministre baa ko wax du faatoo ko wax. dañ waajale international games sort of friendly games but Gambia man uh, any friendlies ke even though correctional nyinshi za da donc timo la management wo be football federation le bulu na football federation yes i be ntol le koto axe men uh, kare sabo min kana nyanta nyin nyin nyin nyin kala wol ntuka ka jibe ok se nyin keno non te nyin non you know but admire arrangement la the the window probably not be on case ma foko wala kedade okay but i'm just saying ko mm. nin timo man coach in that, definitely in that case week also. mm -hmm. so new work at that then you can have a code. me alan this is what we have okay now interim coach like i said ning nanata football la management oto mm -hmm. i understand. manking told that. I understand. Rule. I understand. what is the rule on what But it can't match. And then uh, in July we have international. So there's a plan. Mm -hmm. So until we choose what we can do. Okay. Like for instance, we know we like international match take care of. They can do that. But until our focus is. No, no, they did. They did. That's what I'm but saying. Because of France, they, plan. Exactly. So we're plan. You, choose, you, exactly. we choose what we can for the period. Oh, okay. Yeah, because our emphasis was really mm. they can be able to relate to it. Au ah, kuma yata bakile, jani be murunda nang koma domanding ah, na last participate. Really, okay, ndema problem JJ ak such, mm. you know, because ah, ngangine uh, sort. But this time around manye sort. But wo manke, in the case of Gambia, yeah. But again, ngamira fona mo nyan katale, ye, dan group level ye muruna. Katakota came, maybe they move to the next stage. Then they keep growing. With more experience, with more professional players, then it can, il uh, a positionné copy moment et alors que the same expectation min sort on previously mbe wala kanko we building a team mi along ko even min sort and Gambia being the underdog mi along so dol mi along ko we reasonable ya lo ne ka ha ngatala de mbakara la bari group mi along ko ngam fanje wala to i mean the team will do well but unfortunately woman na soro And then, of course, people expected too much from the team. But in total, Mauritania, Tata AFCON four times. Like three times be they stop at the group level. It's just recently that they move. You perform sometimes, sometimes you drop. But standards bijela and standards nying ni dunta filo kono rekalo kalo ne ko carrying And I think these are the things me. Tadun kadun AFCON wanyim kono. What is your reaction on that? I wouldn't, I wouldn't say anything. It depends on. So you had months to prepare. Okay. Now this time around, you qualified in November. When time did we play our World Cup qualifiers? It was during this period. During that period. Uh, no, that was sorry, that was in November, right? Was in November. So October is the only gap. December boys all Tata camp. January another AFCON. Based on technical reasons, it's not financing. It's based on technical reasons why it was can qualifiers and all that. It will continue and it's, it? now yes sometimes in Niatako you have new players. You would want to test these players to know their skills. But this is a team that has been on for years. <coughs> they AFCON. They went to Qatar. Yeah. For training. And they had another training camp in Qatar just before AFCON. This time around, momentara banta jana mia lonko laftele put. So until nobody can think that oh because until my interest to have success. No, but the conditions are different. and fanan laftere fana mool ye résid ak rottunde wenal every year ak kiñuy seeta ah, ah, li nga xam ne mooy réewam waaye Africa yéen ak maa seet maa ne naa seet waaye Europe yéen ak maa seet comme taagal jom mu jox la lu rafet waxtaan naa wax naa leen ko nii rek la moo nekkee ah, romb bi sax yaa ngi xaw a busy jóge si wàllum li nga xam ne mooy wàllum football yi. <laughs> loolu ah, ci wécci cabinet si moom ci xalaatam parce que do jox na ko do li nga xam ne nii moom loolu la yaakaar ne loolu moo taxoon mu jox la place ga dina la fa bàyyi. Ah, bu la yóbboo feneen di nga liggéey waaye ki nga xam ne ni bàyyi na ko fa dafa mel ni li sëriñ te. ni itam noonu lañ ko gisee ne soo gisee tey reshuffle bi yàlla def bokkuñ ci it's because dañ ne yaakaar it's because dañ ne yaakaar bi président amoon bi li ma def loo xam ne nii waroon naa ko mën a genn a defar te ma defe ko deliberately man luy dox ci stadium bi from bi mu dooree ba tey history bi nekk ci stadium bi ba tax ñu agsi fii président xam na ko parce que stadium bi bu ñu ko build 1984 nañ stadium bi waaye bi ñoo njëkk a baan stadium 2019 mhm. mhm. ma nekkuma ministre mhm. gën yàqu ñu war koo defaraat te mu nekk loo xam ne ni lu sport parce que moom xam na ne amoon xaalis gi tey ëllëg ñu dañ dem liggéey loolu la rek soo yeneen yi amee place nguur keneen ku nekk opposition dafaa nekk di lu rëy waaye lu baax li di ko wax waaye Bakary man personnel jayuma suma bopp sax waaye ku ma xam maaga gën a maaga dugg ci politique euh, président président am na yaakaar ci ñun réew mi am nañ yaakaar ci ñun lépp loo xam ne ndax moom mun naa wax ci ministre bi loo xam ne nii man su ma fa nekkoon di same thing laay wax so loolu moo nekk léegi nag problème bi kooku la non moom xam na ne problème bi fépp la mo mu nekk saa yi ñu waxee ñu gërëm ko waaye mo saa yi mu nekk saa yi ñu waxee ñu gërëm ko waaye comme li ma wax rek Gambien si kon xam nañ ne jafe-jafe bu nekk si ñoom moo nekk ci yeneen place. waaye does it mean ne dama nek ministre violence sunu jabar ji eh, di jabari ministre eh, ni nek yow it ku xombul rek ñu bàyyi nga nuyu wanteeg eh, sa fancy ak also tagato wax ñu kan ak kan ngaa wees happy eid mubarak ki xamul de ah kii xamul la de xamul ma ci xam dara ma ko ma ci xam dara ma ko ma ci xam dara mu ne ko ma ci xam dara rek ba rek wa di nuyu ñëpp fansi di leen wax ne Eid Mubarak euh, jërë ngeen jëf xam naa léegi-léegi nga dugal nata mm-hmm. am na ñoo xam ne dañoo comment am na ñoo xam ne dañ ko dugal seen status di def lu nekk. Mm-hmm. di wax leen ne thank you very much euh, doo mën a reply si ñëpp. Mm-hmm. doo mën a reach out to ñëpp. waaye di wax leen di leen wax ni rek um, some of them dama ko dee gis waaye di wax everybody thank you jërëjëf uh, Fatou du ma def justice su ma gërëmutee Adam Adam Ndiaye Dabo. macha allah uh, bi uh, si moom lañ ko jëndee. Mm-hmm. Adam Adam Dabo maa ngi laa ne jërëjëf thank you so much um, di gërëm ñëpp daal Fatou. macha allah jërëjëf honorable wéyalal honorable ñu dem. Thank you.